damay faral di wax ni ku nekk ci ñun boo màggee da ngay def sa bilan wu éducation da ngay xool ba nga nekkee xale kan moo ci jàppoon pour nga jub kan moo doon seetaan ba nga dëng ñun ñëpp day benn ndijaay bu tudd jool jàpp la loo def lu bon mu jàpp voilà faj la nga jàpp ni grand bi def soxor sama ndijaay def soxor temps temps mais souvent boo demee teg bu la tegee ci yoon bu baax ba nga réussir li ñuy wax réussir sa àdduna ni ko jàppee am liggéey bu baax wala am say terang souvent kooku ñaar fukki loxo nga koy jàppee te pourtant da la doon métital ba nga nekkee xale loolu mooy yaa ngi def sa bilan wu éducation yaa ngi reconnaissant envers lui jàpp ni métital yooyu mu la doon def ndaxte lii moo taxoon après nga xool sa benn morom bi nga xamante ne amoon na beneen ndijaay foofu ci comme yow ni nga amoon beneen ndijaay sa ndijaay jël responsabilité am wala sa pap wala sa yaay wala sa grand frère ku mu doon mais kee moom ñi mu nekkaloon te ñu mat ko loolu jëluñu seen responsabilité dañ ko seetaan ba mu nekk fi agresseur am na ñu bëri dañ dem agressé seeni pap papa ak seen yaay ak seen nijaay ak seen grand frère ah. agresseur yu bëri dañ koy def parce que seen bilan wu éducation la ñuy def grand bi ba muy tollee dafa waroon jël responsabilité jëlu ko parce que bu màggee day comprendre quoi da mere ba boo ko rombee du bëgg lu dul rey la bu lay agressé du ko tey kee nga xam ne dañ jël responsabilité ci moom ba mu nekk fi mu war a nekk lépp lu mu am ci teraanga ñooñu taxaw ci ba mu toll foofu lu mu leen defal da koy xeeb ni ngay yaree sa njaboot ci biir noonu ngay yaree njaboot bi nekk ci biti ñëpp a yem sa doom bu agressé wul doomu dëkkandoo bi agressé yow lay agressé wala sa doom lay agressé wala sa mbokk lay agressé wala dëkkandoo yi lay agressé donc dañuy jël suñu responsabilité fépp taxaw xale yi ba nga xamante ne Euh, jàdd boobu ñuy jàdd di ñu sonal amaana yàlla dimbali ci ñëpp ba du mën a am quoi je pense que mën naa yemalay wax ji foofu ñu ubbi waxtaan bi en attendant merci. merci beaucoup. ñoom ñu sànni ci kàddu si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser ndax xalaat du doy waxtaan la rek wax na ko ci début waxtaanam que ni ñëwul fii pour causerie mais dafa ñëw rek pour ñu toog. def benn échange boo xam ne yéen da ngeen ciy jëleen am loo leen ci jëlee moom tamit mu am lu ci jëlee merci encore une fois Pape jërëjëf ñu tàccuwaat ko bu baax a baax s'il vous plaît oui Lodj. da nga dem dem ba nekk magum jëmm doog a commencé di dugg ci détails yi mais léegi ay xale yam am 14 ans ñoom ñooy dugg ci affaire yi léegi ban politique nag la état central nag war a def jël ci loolu noonu beneen bi ci topp mooy. dañ nag bradage bi dafi laa wooyi Pape Pape Michel chaque jour mu xeex ko mais Pape est ñu bàyyi woon fi filao yi mu nekkoon euh, benn maanaam euh, camp boo xam ne fa la band yi doon def seen campé di fa ginze di fa tuxee bon di fa defee lépp di fa agressé kenn du fa ñeme jaar benn heure bi wala ñu nekk fa benn heure après ñu wàccaat ci biir cité yi toj cité yi delluwaat biir biir biir filao yi ñu bàyyi woon fi filao yi avant est-ce que avantage la woon ci ñun ci ci askanu Géejawaay ak biñ dindee filaawo yi ban ban ban ban inconvénient la pour ñu dindi filaawo yi fii lan moo waraloon carrément seen combat est-ce que xalaatoon ngeen bi ngeen di combat ne waru ñoon dindi filaawo yi est-ce que xalaatoon ngeen ni filaawo yi dafa nekkoon dencukaayu bandi fa lañ doon fa lañ fa lañ nekkee woon parce que fii nii ñun ñëpp maanaam ñun ñu dëkk Géejawaay fii nii muy euh, cinq communes yi nekk Géejawaay yëpp xam nañ actualité yi fa nekk ay gunaas comme nu nga ko waxee dëkkuwaay yi parce que boo maanaam dëkkuwaay yi ni ñu dëkkee woon la boo demee euh, Sam Notaire dëkkuwaay yi ni ñu dëkkee la boo demee Wakhinane Nimzatt Ndiarème Midina Moulay golf presque daanaka maanaam noonu la maanaam dëkkuwaay yi amuñu woon espace boo xam ne gars yi mënoon nañ fa dem di fa fa boobu nag te théâtre xewagul woon carrément wala bu théâtre xewee woon maanaam fësul woon carrément. mais théâtre nu mu commencé jógtee fii ci biir géej waay maanaam moom it mu ngi commencé di changer lu bëri ci ci waay comme nag théâtre mu ngi joué rôle am comme ni ko Pape may Pape Michel waxee ci biir en ville de géej Guédiawaye pap question bi soo ko mënee tontu rek ci seen xeex boobu noonu ndax xalaatoon ngeen ni maanaam dindoon filaawo yi gënul woon ko ñu bàyyi woon fi filaawo yi. wante kii joxe na sànq benn li nga xamante ne bible réponse la quoi parce que dafa Euh, marché bees dafa amoon agression après mu ne kii moo ñëw sëñ Abdou Karim Mbacké juste pour exemple rek moo ñëw mu régler problème bi d'une certaine façon euh, de par lan yóbbu leen fenn ak loolu quoi donc pour man dafay wane euh, comme li nga waxoon sànq bu njëkkoon ñemewoo nekk fenn di def yenn yenn bêtises yi nit ñi di la di la xool xaw ma fii mais ñun fi ñu dëkk fi ñu dëkk ci yaraax bi ñu nekkee gone boo defee loolu bon ko bu la dóoree ba pare su su ngoonee. supa bi dafa lay delloo si kooku encore mu dóoraat la foofu quoi si kanamu si kanamu kooku pour koo xam ne que euh, li li mu defoon moom moo si njëkk a moo si njëkk a moo si d' accord après les pour ma dama comprendre ça ça pose un problème d' parce que euh, fii Sénégal depuis vingt cinq ans ñu ngi am ay trouble affaire éducation j'ai appris si quelques rapport quoi yu xaw a crédible tuuti que on tourne autour de cent vingt jours d' école par par an xam nga loolu na wax dëgg yàlla bon munul yor mënul yor mënul yor réew waaw autour en moyenne cent vingt jours par par an am na ay yi nga xamante ne sax pratiquement amuñ sax quatre vingt dix jours par yu ñu jàng yaa même des années yi nga xamante ne presque ay ay vingt cinq jours lañu lañ jàng presque quoi bu ñu compter boy jour yi ñu mos xëy dem école fekk fo prof ñu jàng yaa des années où presque am amuñu amuñu dara tamit quoi loolu nag euh, cycle boobu fekkee ne mu ngi continuer depuis boobu ba ba tey Euh, il est normal que fi ñu toll nii tey ñu mun a dund yenn yenn situation yi. donc man ci côté bi may wax mooy euh, tey jii ni boo xoolee agression dëkk yëpp la am mais dafa bëri Sénégal daf fi commencé bëri daf fi commencé bëri mais dëkk yëpp la am mais léegi nag naka lañ mën a def ba xeex ko li ñu gën a sonal nag mooy branlon ñu senegal branlon moo ñu sonal branlon secteur bu nekk nga koy bëgg am ba ci agression da bëgg a am branlon. mooy nga nekk yaay wala nga nekk papa wala nga nekk rak wala nga nekk mag da ngay bëgg xam benn agresseur boo demee benn secteur bu ñu la laa nga ne man ko ñu diw dëkk après boo nekk ko ñu diw parce que agresseur dañuy xamante après ñu bàyyi la nga dem noonu lañ koy defee ñun ñëpp ci secteur yëpp lañ koy defee affaire du affaire ay police wala gendarmerie affaire bi affaire de responsabilité nit ku nekk da ngay jël sa responsabilité buñ ne woon gox bu nekk fa jàpp fukki agresseur boo ñëwee am nga dix milliards léegi agresseurs yi jeex fi non non c'est que juste dama ko waxee noonu bu ñu fa jàppee fukki agresseur maanaam bu ñu ne woon bopp agresseur bu nekk un million la léegi agression jeex parce que kenn ku nekk sa biir ruq xam nga fa benn agresseur wala boo ko xamul dégg nga ko wala boo ko déggul tamit xam nga ku ko xam alors léegi nag ñu bëgg naan noo état état état sécurité policiers yi naa la xamal leen de kenn gënu leen bëgg seen bakkan billaahi da ngay xool tey jii ni ñun yaraax côté bi ñu dëkkee ñun géej lañ côté géej bi noonu fi ñuy wax Kappa Keeba foofu noonu booy jàng ak kii booy jàng gens yëpp foofu lañ jàngee gens mooy booy jàng gens suñu koñ yëpp booy jàng tux boon suñu koñ yëpp foofu lañ jàngee tux boon suñuy rakk ñooy jaay boon di foofu noonu alors léegi pourtant dañ leen di bàyyi ci biir dañuy dajeeg ñoom nii am nañ suñuy rakk yoo xam ne ñu ngi tux boon fa lañ koy jëndee ki jaay boon day bëgg ku jaay kii jaay day bëgg ki muy jaay léegi à chaque fois ñun léegi dañuy gis loolu noonu ñu bàyyi ko xoolal bu ñu defoon cinquante mille fois ay tee débat génne cinq mille cinq cent ay policiers ñuy wër ci koñ bi day continuer. bu ñu bu ñu bu ñu naxantee nañu wax li am gis nga violence bi ñuy wax muy agression muy violence verbale muy physique yëpp ci biir kër yi lay commencé te bu ñu xoolee ba ci biir yaay yi ñoo koy njëkk commencé nañ leen waxante dëgg moo fi nekk parce que da ngay gis xale. fu violence njëkk a commencé mooy dangay nekk xale xeex ak sa moroomu xale mu jooy ñëw sa yaay na la doo fayu tàppen nga bu la dóoree xaañ ko bu la defee lii defal lii yow loolu violance la léegi xale bi day génn moroomam bi ko dóoroon mu jël dara xaañ ko xale bi gaañu walla dara kan moo indi violence bi yaay ji moo indi violence bi beneen bi mooy tamit da ngay gis ki nga xam ni day nekk sàcc ci koñ wala mu sa yaayam da koy xam mais da ciy dëgg tànkam parce que day baaxal doomam du bëgg ku bonal doomam te kenn bëggul ku bonal doomam mais gis nga doom su defee lu dul yoon da koy corriger à bas âge gis nga garab ci bi muy tooy lañ koy jubbanti soo bàyyee ba mu wow nga ne da nga koy jubbanti non loolu mënul nekk. donc damay wax violence du mës a jeex bu ñu nee day jeex rek dañuy gëfal dong ndax tey mën nga gis dëgg dëgg si sa tànk. nga ne su ma waxee su ma génne kii damay kar fii loolu moo fi am de ba pare violence moom mu ngi ci kër yi fees fi dell da ngay gis nit benn agression nekk liir bu ndaw sàcc mu ñëw yaayam nag xola di ko nëpp nëppal jox ko boolu añ mu wan na ba suur naxee ko ataaya bu xëyee jaar nii dem yoonam fii looloo fi am du mës a jeex dañ xola dañuy gëfal donc man ne damaa gëm ne man dañuy gëfal waaye du mës a jeex moo fi am damaa bëgg wax loolu nag pour ma génne ko sama xol pour ma féex. dafa am benn derke benn lu ma dégg muy loi des des enfants man pour man dafa dooleel xale yi dañ ne bu njëkk ba dëkkandoo mën na yar sa doomu dëkkandoo papay keneen mën na dóor sa doom mais instant bi yow boo dooree sa doom police moo lay jël si wàcc na ci réew mi te ñu ngi koy utiliser te kenn yëgu ko. fii ak dóoroo sa doom auto police taxaw sa buntu kër yóbbu la dama ko gis ñu ne luwaa bi wàcc na boo demee ba foofu ñu ne da nga doon torturer xale bi waa léegi boo doorul sa doom yow kan ngay door boo wàññul sa doom comme que xale moom xamul yàlla yar la xam te kenn du fi ne nag dóorul du dóor doomam da ngay dóor sa doom dóor sa rakk door sa jarbaat mais tey ku ko ci dóor def leen attention yéen ñëpp nag laay waxal ku ciy dóor sa doom defal ndànk dañ lay jël si léegi dafa xew moom moom noonu la ñu xewal léegi ci jamono ji kon xale yi dinañ gën a yàqu koo doon dóor muy yàqu nga koy wax muy dégg mu lay ragal bu lay bu bu oto ñëwee oto police jël see yóbbu la police xale ba xam ne man mii lañ dóor moo tax ñu yóbbu ma police xale ba fitam da yokku kon agression bi day gën a yokku ndax dootoo mënal sa doom dara dootoo mënal sa jarbaat dara dootoo mënal sa rakk dara kon nag yenn yenn yenn yenn kii yi ñuy wàccee luwaay yi ñuy def di ko wàcc nañ ko waxtaan ak askan bi pour ñu mën a xam loolu day yokk xale yi agression bi da ciy yokk xale yi nga gis ñuy agressé di 15 yëpp amuñ amuñ sax ay 15 ans amuñu ko ñun gétt bi ñu jàkkaarloo xale yi fay yi fay takk saret wallaahi amuñu 15 ans te mënoo ci dara doo ci dóor kenn doo ci saaga kenn police nga mën a ñëw police jël ci leen bu ñu demaatee semaine ñu ñëw takk man ku ci mel ni man moom nee naa man la ñuy njëkk a rey ci koñ ndax man damay guddee fu ma dem damay toog ba li may def def jeex ma ñibbisi mais kon léegi noonu la ñuy def il faut ngeen wax ñu yoon bi naka la ñuy def boo yaree sa doom ci kër gi bu génnee ca mbedd ma dajeeg meneen jóol mu yàqal la sa doom dugal ko ci leneen nekk paa koñ bi ca koñ ba wala grand ca koñ ba di jaay yamba di def ay affaire am woo ko ñu naan paa jóol tontoo jóol fekk moo yàq xale ba nañ leen waxante ci suñu biir te bu ñu naxante wasalaam maa ngi gërëm ñëpp. Euh, man la maam Cheikh mbay nekk ci compagnie théâtrale bët euh, juste damay euh, joxe. tuuti rek sama xalaat ci li nga xamante ni mooy agression bi nga xam ne moom la ñuy wax man nag ci benn côté dama koy situer ci suñuy responsabilité ñun ñëpp ndax euh, dañuy wax agression chaque jour agression ku nekk naan dañ la agressé wala nangam ak nangam ak nangam te des fois ñun ñi nga xamante ni ñun la ñuy agressé dañuy gis wala ñu xam ki ñu agressé te sañoo ko dénoncé da ngay dëkk ak nit ci koñ mu nekk ci biir koñ bi di agressé te doo ko boole da ngay dëkk ak nit ci biirub koñ muy jaay bon nit ñi di ñëw di ko fréquenté ci sa buntu kër nga di ko gis nga ni doo ko boole boo ko boolee ñu ni da ngaa soxor soo ko boolee ñu ni da nga koo iñaane soo ko boolee ñu ni da ngaa euh, maanaam doo dugg lu sa yoon nekk léegi kañ la Euh, maanaam lijjanti loolu kañ la ñuy jóge ci li nga xamante ni ci la ñu nekk parce que am na ci loo xamante ni xeex am na ci dëgg la comportement yi xaw na yàqu mais ku ci nekk tamit war nga am sa responsabilité bopp ngir aar sa bopp aar sa njaboot ñun ñii ñuy agressé am na ci ñu bari ñoo xamante ne ñi ngi génn ci mbedd mi ñu leen di agressé lan la ñuy def ci mbedd mi yenn heures yi liggéeyuñu defuñu lenn fan la ñuy toog bañ leen di agressé lan lañ fay def mais boo xëyee doxil farata boo paree duggal sa biir kër nga toog est-ce que dinañ la agressé liggéey fii nii ñu fi bari tey jii am na fi ñoo xamante ni effectivement am nañu ay liggéey yu ñuy liggéey liggéeyu guddi la am na mais am na ci ñoo xamante ni vingt deux heures au plus tard waru leen a mën a fekk ci mbedd bañ di leen agressé ku gis ku la agressé nga xam ki la mais dénoncé ko ku ci nekk bu doxalee loolu defe naa ni nga xeex ci sa côté dina xaw a wàññeeku ñu bañ a dugal ci affaire bi ci côté santiment xarit la wala mbokk la wala dëkkandoo la bu dee dëkkandoo boo xamante ne dafa nekk ci sa biir kii di influencer sa njaboot di leen wan naka la ñuy defee jëf ji bon nga bàyyi ko ci sa njaboot muy def bu ñu demee ba ci côté yooyu noonu dañuy dem ba benn instant est-ce que mbir mi du gën a dem di law fii ñun ñii ñëpp ku ci ne tey jii am nga ci sa entourage koo xamante ni mi ngi jaay boon te soo ko rombee ñaari loxo nga koy jox di ko nuyu di waxtaan ak moom te ñëw ko dénoncé. question rek mais may wax nii dafa am benn agresseur sax laay wax parce que moom euh, nangu na ni moom loolu la woon. muy Pape Abdoulaye Fall xam naa ne ku ko xamul tamit dégg nga ko mu yàggoon ci kaso bi torop presque def na fa lu mat dix ans xaw ma douze mais bi mu ñibbisee dafa am lu bari loo xamante ni daf ko regretté bi mu ñibbisee dafa am lu bari loo xamante ne ni daf ko regretté mu réccu am bés mais. géejawaay la dëkk fi la juddoo fi la yaroo yàgg na fi ay rakkam ak ay ñëppam ñi ngi fi mais bi mu génnee da doon dox rek di seetaan nit ñi di xool nit ñi di dox di xool nit ñi mais li mu gis moom en tant que agresseur ba ñu tëj ko pendant dix ans xaw ma douze ans ci kaso bi mais moom loolu daf ko yéem parce que munul munu munu munu munul xool gis xale boo xamante ni quinze ans la am dix huit jàpp vingt ans di. di commencé di agressé di guinze di mandi bay tërëf moom loolu daf koy yem mu jaral ko un jour ñu ñëw fii ci terrain Djibo bi ku ci defe naa ñu bari xam nañ ay dara Mbacké lu ci bari dina na ko fii budul dul woon moom mën naa wax ne tey fii toog fi dina jafe lool ndax bëri na ay jeunes yoo xamante ne nii détourné leen tey indi na leen ci ci njabootam tàggat leen bàyyi la ñu dem ak seen dignité ba ñu xam ñoom ñooy ñan ba jomma def yenn yi bi ñu amee fii indi leen fii ci terrain Djibo bi mun naa wax ne ay vers heure bii la rek jëm vingt mu dajale mbokkam yi nga xamante ne ni ñoom ñoo doon defandoo loolu ndaw yi nga xamante ni ñi woon fii ci quartier bi di def naka sulu noonu mu woole ne leen xool leen ci man tey lan laa am tey lan lan la ma agression may tey lan lan laa am tey tey dafa commencé waat à zéro nekk magum jëmm commencé waat à zéro delluwaat ci métier am tey kooku kaso da koo defar delluwaat ci métier am tàggataat boppam bëggul leen lu lu leew et dafa naw ndaw yi nga xamante ne nii tey ñoom ñooy dundee seen seen ñàq naw leen respecté leen jox leen benn cër bi daane xool leen ci ñii xool leen ci man bëri naa fi morom tey raw nañ ma tey maa ngi topp ci seen ginnaaw ngir bëgg tey lu ma ndékkee wala lu ma añee pour lan lan moo ma ko teg te bi mu ci toll amoon doole trop amoon gëdd fu mu romb jaar fa dañ koy seetaan ndax taxawaayam tey mi ngi regretté lu bare bare bare bare bërki démb même pas deux ans trois ans école bii ñu toog fii fii la ñu rey nit jour tabaski fii ki ñu rey seen kër a nii ki ko rey seen kër a nii mais ki ko rey ñëpp xam nañ ko fii au niveau di Guédiawaye moom moo ko jël jàpp ko yóbbu ko ba police ne ko segam yaa am sañ-sañu ray nit tër ko bisub tabaski nga waroon a am fitu tëb tëdd ci kaso bi. yéen ñi fi teew ñëpp monsieur Mendy man dama am ay question yu may laaj en tant que membre société civile. Euh, pourquoi pas Sénégal lan la ñuy ragal. Sénégal Sénégal si boppam laa bëgg a xam si lan la ñuy war a ragal si peine de mort ñu indi ko parce que man su ma leeree ne du ma rey nit waruma ragal peine de mort ñu indi ko ku rey nit ñu rey ko beneen bi arme yi nga xam ne dañ koy jaay jaas yi ak paaka yi ñiy agrese moom la ñuy jënd pour rey doomu aadama yi. ndax warul mën a am ay place yoo xam ne ñoo koy jaay mu am ay kayit te ku amul dix-huit ñu bañ ko ko jaay comme lonaas ni mu def si ay keskam wasalaam. yëpp yaakaar naa violance ay affaire agression lu yàgg la ci jamono bu njëkk dañ daan dégg ci laa ko alpulaar ñuy wax addu kalpe addu kalpe mooy bon jox ma sa kalpe yaakaar na parce que addu si alpulaar addu moom mooy jox ma kalpe mooy li ñuy denc koppar donc kon. lu yàgg la léegi après la ñuy indi agression parce que dafa gën a metti ñu koy utiliser ay jaas yi wala ay affaires yooyu waaye lu ko waral ak yan pexe lañu war a def loolu la pour man thème bi loolu moom moo kii je que yi ma xalaatoon point yi nga xamante ne peut-être tënk naa ko pour man ci wax benn bi du jool wax na ko mooy éducation bi d'abord parce que man nu ma ko xalaatee mooy suñu école bi dafa poser problème ci yu demee nii parce que xale bi bu juddoo ba fi muy am juróom at. pour nga denc si boppam dara lu jafe la waaye diggante boobu mu ngi jàng dafay jàng loo xamante ni ci làkk bu mu nàmp la foofu la juddoo parce que environnement bi làkk boobu la ñuy wax mooy su fekkee wolof la wolof la ñuy wax fekkee alpulaar la fekkee joolaa la làkk boobu la ñuy utiliser mu nàmp ci loolu maa ngi ci ba am juróom-ñaari at nga jël ko yóbbu ko si école ba nga xamante ni laneen lu bees nga koy jàngal muy ay 1 2 3 4 wala nga koy wax ni ABC nangam xamul loolu. mosu koo dégg lu bees la donc nga ni ko fii ak juróom-benn at yi wala fii ak juróom-ñaari at yi dinaa fexe ba nga mokkal si la nga xam ni mosoo ko dégg fenn mais soo ko mokkalul boo ko defee benn yoon ñaari yoon dama lay dàq donc xale bi à douze 12 ans 14 su amul entrée en sixième dañu koy dàq donc renvoie les enfants barina xale yi nga xam ne dàq nañu à l'école parce que mokkaluñu beneen làkk bu bees bi ñu leen indil problème la léegi ñu renvoyé na à si 14 ans yooyu amul métier mënoo ko jàngiloom heureusement que am na fii bon mécaniciens yi menuisiers yi ñenn ñu bëri bëri récupérer ndaw ñooñu ñu yóbbu si atelier yi ñu fay jàngi métier ñooñu au moins ñu am benn formation foofu bi ñu amul lu ñu def yi ñooñu lan la ñu doon ëllëg ñooñu ñooy dem géej ñooy dem fréquenter ji ay grand yi nga xamante ni peut-être ñu ngi toog si benn coin ñu yónni leen si fi ñuy jaayee bon ñu yónni leen benn cornetu yamba wala affaire yooyu ñuy def apprentissage ni nii menuisier bi di jàngalee xale bi ñu dàqe à l'école noonu la keneen di jàngalee xale bi dawal charrette mu jàngalaa ko naka lay jënd jee bon wala mu jàngal ko naka lay jëndee butéelu durian bu muy ginzee wala affaire yooyu donc loolu dafa nekk problème est-ce que nag jotul wala jaaduwul suñu éducation mu xoolaat loolu. violence bi dafa surexposé. fépp quoi fépp. télé bi boo taalee ay film yi rayante lañ lay wan actualité bi boo dégloo journaliste yi lu sensationnel rek lañ lay wax quoi jam nañ kii rey nañ kii violé nañ kii loolu ngee dégg suba ngoon guerre fii Ukraine fii loolu rek ngee dégg donc violence tey booy boo leen joxee ay ay ay téléphone comme ni ngeen ko waxee contenu yu bëri yi ñu seetaan contenu yoo xam ne ak caractère violent la am voilà même wax yi sax boo termes yi ñuy sekk suñu biir sànq bi ngay wax soxna si dama yaakaaroon exemple parce que jigéen yi ñu ci ëpp seen langage dafa nekk langage bu ngeen baal ma ay bu xaw vulgaire bu ñuy wax seen doom saaga yi day bari daal saaga yi day bari donc yooyu yëpp dafa dañu surexposé à la violence day dem ba nag nit ñi dañ koy banaliser te buñ ko banaliser rek dañ koy utiliser sans pour autant mu def leen dara tey Sénégal dafa am benn phénomène boo xam ne ñii dañ ci war a def so am def attention mooy réseau sociaux yi ak chaînes yi nga xamante ne chaîne u télé la mais nekkul ay chaîne u tele classique <laughs> man maay toog ba mu neex ma rek ut sama caméra sama caméra ut samay matériel ne ëpp ubbi naa benn télé tuddee naa ko voilà xaw ma lan TV mu ngi ci YouTube bi dugg si terrain bi di filmer di poster di filmer di poster di filmer di poster mais information dañuy jàng nuñ koy traité. ñooñu ñu ci ëpp nag jaaruñu école fa ñuy tàggatee taskatu xabaar yi ba nga xam ne souvent dinañ dugal ay contenu yoo xam ne war ñu ko dugal dem gis nañ benn télé boo xamante ne wala ay télé sax en ligne yu dugal ay nit yu dee ci ci ndox mi journaliste bu ñu tàggat du def loolu parce que loolu dafa violent dafa violent gis nañ fi ay télé yu filmer ay alk ay ay ay militaire yu dee ci xare di ñu won ay militaires yu dee journaliste bu ñu tàggat du def lool gis nañ ay télé yoo xam ne dañuy dugal lu violent rek la ñuy dugal parce que xamuñu lan mooy filtre ci traitement information traitement information dafa am filtre maanaam information boo ko jotee da ngay teg information bi d'accord mu ngi nii waaye nan laa ci nan laa kay joxe public bi ba ñu mun ko consommer sans pour autant ma gaañ leen te filtre yooyu nag. filtre yu ci bëri wax ngeen ko fii mooy valeur yi nga xamante ne moom la ñu am mais surtout mooy dignité doomu aadama munoo xëy rek parce que journaliste nga wala jàppee nga sa bopp journaliste brut bi da koy jël rek dugal ko sa non da ngay gaañ da ngay gaañ da ngay surexposer violence bi day jur yeneen yoo xamante ne boo deful ndànk du baax ci du baax ci askan wi quoi alors sànq bi may wax sama exposé besoin moraux yi laa tëb te wax ngeen ko mooy yar bi ci diine bi yar bi ci valeur yi dafa am solo nit mënul dundee mburu ak ndox ak ceeb kase déedéet loolu da du nit motagul foog nga def ci moom ay valeur morale foog nga yar ko ci diine foog nga yar ko ci valeuru askan bi mu nekk ci valeuru euh, voilà culturel ci nga xamante ne ci ñooñu lay dund parce que dañu am ay valeur foog mu nekk ci moom foog mu mag foog ñu mooñaale ko valeur yooyu loolu mooy tax bu màggee mu mun a nekk koo xamante ne dina nekk ci société bi nekkin bu normal surtout Sénégal nga xamante ne dafa nekk dëkk boo xam ne dañ koy dàqantalee dëkku diine te muy dëgg li ngeen wax dëgg la violence yu bëri fii géejuwaay gox bi mais ñi fi ñëw sanc ay daara wala ñu nekk fii ay ay jàngalekatu diine ñoo récupérer ñooñu mooy li ma doon wax sànq récupération bi xam nga dama jël exemple rek féetale leen ko ñoom ñu ñu récupérer noo ñooñu yéen noonu ngeen mën a récupérer yenn booy yoo xam ne ñu ngi ci biir wala ñu ngi ciy waaj a dugg donc seen présence ñoom muy sëriñ yeeg sëriñ seeg jàngalekatu diine yeeg affaire yooyu mu nekk ay nit yi responsable ñu xam seen mission parce que ci mission lañ nekk ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu affirmer ko ñu ñu ñu ñu nangu ko dañuy sobe lu bari dañuy defar lu bari dañu am solo donc valeur morale yi tamit dafa bokk ci loo xamante ne dafa dafa dafa am solo euh, beneen éducation traditionnelle oui suñuy valeur dañ ko war a conserver mais dañ nekk ci jamono ju jaxasoo <laughs> mu nekk loo xam ne lu jafe la exemple yi ngeen joxe doy na firnde exemple jool bi <laughs> doy na firnde tey booy boo leen bëggee dajale chaque jour di leen léeb léebal kon ni ko suñu maam yi doon defee ba deful ndànk comme ni mu waxee bu ñëwee trois jours quatrième jour bi doo leen gis mais mën na nekk ci kaw contexte bi booy bu ñu nekk tey ñu fekki leen ci xam nga xale boo ko bëggee yar boo ko bëggee nax da koy yow miy mag da ngay wàcc nekk xale utiliser la utiliser langage xale comprendre langage bu mag mais mag mën na utiliser langage bu xale maanaam xale da nga koy nax ba yóbbu ko fi nga ko bëgg a yóbbu mën na nekk mën nañ dajale ay xale di leen léebal mais foog forme bi changer tamit. ñu adapté ko par rapport ak ñoom seen contexte toujours waxtaan bii bu nekkoon ci biir salle bi arrêté na bu yàgg waxtaan bi nii bu nekkoon ci benn classe bi arrêté na bu yàgg parce que classe bi day tàng parce que dañuy stressé dañu nekk entre quatre murs parce que dañuy commencé comme ni ma waxoon ku nekk di joggi sa morom parce que tàngaay boobu doo mën a nooy ngelaw lu feex doo mën a doo am espace bu doy pour mën a toog féex. mais Afrique lii lañ xam lii wa arbre à palabre toog suufu garab yi di waxtaan <clears throat> gàncax gi wër ñu xam nga environnement bi wër ñu suñu environnement Kolda la dem keroog ñu dem di reboiser benn site comme nii mais garab bi fa nekk garab bi largeur bi dafa yaatu ñoom fa la ñuy jullee korité tabaski waxtaan yi am importance yi sax fa lañ ko daan defee mais dama leen ne même séminaire yi ñu doon def yi ñuy def ñun pendant une semaine fii lañ ko naroon defee. bu guddi jotee ku nekk dem sa sa chambre hôtel ba tëdd mais waxtaan yi mën na nekk fii c'est-à-dire Afrique ñun lii lañ xam foog ñu am li ñu moom li ñu xam foog ñu utiliser ko mooy ñu ñenn doon wax gars yi dañuy jóge fële lépp lii suñuy valeur dañ koy changer dañ koy génne boo buggee ma financer la lii ngay def donc foog ñuy jàng ñun bu ñuy tëgg suñuy projet di ci boole waale suñuy valeur d'accord site bi foog mu am hébergement classes yi da leen di utiliser comme ay dortoir mais waxtaan yi ci biti lañ koy defee mooy tax ñu toog féex di waxtaan ku nekk di dégg sa morom mais bu nekkoon ci classe bi man sam bopp maay njëkk a ci waxtaan keneen ak keneen doyal ci waxtaan bi jeex donc moo tax Afrique lii lañ xam géew lañu xam géew toog waxtaan ku nekk bokk ci parce que ni ñu toogee daf ci boole ku ne mais bu ñu toogoon classe bi dañuy frontal man damay toog nii ak sama waa ji mi modéré ma jàkkaarloog yéen léegi mu doon guerre man ak yéen ngeen di poser question mais jaay xam-xam ngeen di contester mu nekk guerre mais xool leen toogaay bi amul amul confrontation ñëpp a ci bokk ñëpp ci bokk donc suñu maam yi li ñu daan def xam nañ ko bu baax xam nañ ko bu baax am ñax ñu woon néeg de village boo demoon fekk fa ku nekk ak sa néeg mais aussi fekk fa néeg bu mag boo xam ne ñëpp xaj nañ fa wala ñi bëgg waxtaan xaj nañ fa. mais duñ ko def foofu dañu koy def ci penc ma penc ma lañ koy def toogaay toog toogaay boo xam ne ku ci nekk di nga ci gis sa bopp ku ci nekk li nga moom dinañ la ko jox ba mu mat sëkk loolu mooy Afrique bu ñuy tëgg suñu projet seen projet yi boo leen koy tëgg aspect boobu dee leen ko ci boole dee leen ko ci boole même bailleur bi bu jógee à l'extérieur mu xam ne yéen li ngeen doon bàyyiwul leen mooy li mu wax sànq kàllaama bi su ma ñëwoon fii naan damay def. conférence bi en français waxtaan bi du neex ñu bëri duñu intervenir bokk naa benn débat fële panel ak jol man dama ñëw ki ubbi panel bi def français jox ñu jox ma man maa wax xaw ma maa deuxième bi non dafa am ku topp ci man wax def francais ma wax def sama français jol moo topp ci man mais dafa wax def wolof mais ñu bëri bu ñu jëlee parole bi bi jëlee kàddu dañ mais dañ ne jol merci parce que yow rek yaa fi làq luñ dégg ñeneen yi li ñuy wax yëpp ñun dégguñu ko. donc suñuy uti de communication mu ngi fi dara terew ñu ñuy waxante suñu biir làq yu ñuy làq suñu biir réew yu ñu nàmp di ci déggante ñu koy utiliser di wax yéen wax naa leen ay communicateur ngeen te seen baat ngeen di liggéey donc loolu dafa am solo ci yéen fi ngeen di dem instrument de communication bi gën a adapté mooy liñ fay làq gox boobu boo demoon tey ba Kolda di fa jouer théâtre naan da ngay ñëw di làqi tubaab it da nga perte sa rek def quatre cent kilomètres pour ñee mais boo amee ci yéen ay nit yoo xam ne dégg nañ liñ fay làq bu ñu utiliser kàllaama boobu comme outil de communication message yi ngeen fa jàllalee yëpp dafay jàll xaw ma ba xam dina fa des mais en tout cas ñoom dinañ ko dégg te loolu dafa am solo ci communication donc beneen bi mooy euh, bon peine de mort moom vraiment aw ma lu ma ci lu ma ci tontu c'est aspect juridique la ay aspect wu ay ay. état bi nuñ ko tënkee nuñ ko tëggee xam nga dañ nekk ci république ak yooyu yooyu lañ lay wax quoi. loolu moom aw ci aw ci kii. arme blanche bien sûr arme dañu dafa dafa dafa dafa organiser loolu moo tax may wax état état mooy lu organiser du xëy rek di tell tell dafa am ay loi yu tënk yu ne lii fii lañ ko war a jaay téléphone sax waroo ko jënd ci mbedd téléphone waroo ko jënd ci mbedd da ngay dem jënd ñu jox la sa facture bi nga ko jëndee nga denc ko. nga denc ko bu ko sànni bul génn boutique bi rek sànni denc ko suba bu amee problème da nga war a dem joxe ko ñu xool parce que c'est garanti une année wala deux ans ak yooyu bu dul loolu sax recel mën na am danga ko war a denc waxatuma la loo xam ne day gaañ arme blanche kenn du ko jaay paaka veyu tabaski da ngay tiit foo tourné gars yi ay paaka sant ak xaw ma lan la ñuy jaay. c'est pas normal mais suñu dëkk moo tëggoo moo moo moom lañ tëggee noonu dafa nekk dëkk boo xam ne dëkku maslaa la dara garaawul quoi tant que amul gaañ garaawul quoi on fait on fait avec euh, waaw c'est vrai dénonciation yi police chaque jour boole leen tey dafa neexoon sax benn élément police toog fii ci débat bi mais bu doon wax li ngeen wax lay wax collaboration entre police ak citoyens yi parce que loolu mooy tax ñoom ñu mën a liggéey booy xool policiers yi dugal nañ fépp ay indicateurs yenn saa yi da ngay toog di ataaya ki lay ataayal policier la keroog dama dem fole brigade des recherches fekk fa ñaari fauteuil roulant yu ngand mën a waa sama gars yi ñoom fauteuil yi ngand na la teg ci kii adopté mais xool si ñoom kan moo ci war a nekk un gendarme handicapé affaire yooyu mais bi ma toogee xalaat xalaat xalaat ma ne non non fii amul gendarme handicapé lii mooy fauteuil yi gars di utiliser pour infiltrer gars yi fépp am na ay indicateurs mais doyul tant que population bi mun ñu collaborer ak policiers yi mën a dénoncer ñoom policiers yi souvent dañuy am problème pour mën a def seen liggéey ni mu waree mais coow li mooy encore une fois nu ñu bindoo ñun te wax nga ko keneen keneen wax na ko dañuy bañ a dénoncer dañuy voilà dëkkandoo la lii ak lii la maslaa bi lii ak lii te yooyu souvent day indi day indi gaañ li xew li ngeen wax fii xew seen koñi moo xew sama koña ah, sama koñ boo desoo ci ginnaaw dafa am foo xam ne gàlle boo xam ne kenn dëkkatu fa booy squatter ko fa squatter ko nekk foofu jaay boon xam nga côté boobu yëpp lañ nangu man sama doom dama leen tere sax ak si boobu bul jaar fii laa wax jaaral ni amul jaar côté bii nii ngay jaar parce que ñoom ñoo nekk foofu kenn mënul ci ñoom dara police ñëw na fa ñëwati fa kenn mënul ci ñoom dara donc mais li am solo mooy lu ñu bañ a war a bañ a négliger mooy état warul faible amul policier noonoo policier nga ñun ñoo la jox monopole de la violence légale légitime ñoo la jox sañ-sañu aar ñu utile defee ko nii ak nii ak nii te dara du la ci fekk état bu feeblee ñun dañuy sànku cest à état bu demee ba ragal gis benn gangu agresseur wàcce fa ay policiers contingent LG yi benn LG yi benn LG yi mun nañu dóor ñun ñëpp takk ñu tëral ñu benn rek benn bu ko décider. donc état warul faible ñoom ils sont formés pour ça ñun ñoo amul formation boobu moo tax xamuñu ñu yaakaar ni ñoom mën nañ dara ci policier kii bu gaay jugoon seen kaw ñu ñu mu jeex état warul faible mais ñun tamit waruñu nekk ay complice ak agresseurs yi ba di leen di ba di leen aar ak yooyu quoi euh, beneen obligation bi ah damane ne police dama docteur ci droit obligation de moyen la am moyen mooy waa ji fi temps yële passé waa ji fi xëyoon ne docteur la <laughs> te mu jàng ko bon jàng na ko mais amul tollu jàng jàngam te xam nga médecin médecine dafa gudd dafa gudd fa nga jàng ba ñu jox la droit wu nga faj moom yeggul foofu xaaju fa sax yegg xëy na day opérer sol ay ay blouse am amagul moyen yi c'est-à-dire ci xam-xam ak ci formation moom nit ki amagul moyen yi parce que amagul diplôme bi amagul autorisation bi muy benn boo ko amee sax état nee naa docteur mosoo gis docteur bu tabax hôpital day jàng rek waaw léegi après état mooy tabax hôpital bi bu ko tabaxee ba pare mur yi kase doyul pour ñu ne lii hôpital la foog nga def ko def fa jumtukaay yoo xam ne moom la docteur bii ñëw am xam-xam matale ko ñu jox ko autorisation pour mu faj mu fekk ko fekk ko fa man ko utiliser pour faj la faj ma faj keneen loolu rek lañ ko laaj mais dangay ngay wér ak doo wér yoonu docteur bi newu ci <laughs> wax dëgg yàlla yoonu docteur bi mais lu mu mënta def dina góor góorlu ba faj la ba faj la loolu mooy obligation loolu mooy moyens yi da ko war a am moom personnellement dafa war a am xam-xam bi parce que daf ko war a jàng ba ñëpp reconnaître ko mu am ay diplôme am autorisation exercer ko état tabaxal ko jox ko jumtukaay yu doy yooyu bu dajaloo moyens yi nekku fa donc obligation bi amul résultat bi résultat bi moyens yi ñoo koy indi dafa war a def résultat mais à condition ko moyens yi nekk fa donc moyen bu manqué rek résultat du mun a am quoi waaw bu dee mét euh, chauffeur bi nag yóbbu ma Pikine la bu la wàccee fii da ngeen di xeex bu fekkee fay nga ko da ngeen di jote donc yóbbu ma Pikine dala war a yóbbu Pikine buy jaar nii ak buy jaar nii bu gaawee ak bu yéexee dala war a yóbbu Pikine loolu rek nga nga ko laaj mais pour mu yóbbu la Pikine mu am permis loolu moo tax alkaati bi taxaw ci mbedd bi di vérifier ndax chauffeur yi koy romb yor nañ permis ndax mën nañ dawal pour remplir obligation de résultat bi sinon dañuy def accident dañuy lor doomu aadama donc loolu mooy loolu mooy obligation yi quoi defe naa des na benn question mooy euh, waaw kii tiki foofu laay jeexee jeexale mooy euh, moyen de communication yi bees yi ay téléphone internet affaire yooyu loolu moom ku góor góorlu ci man ak keneen ak keneen a ci yem parce que dafa nekk un phénomène mondial booy dañuy toog seen néeg ne la tey génnuma alors que ñu ngi ci mbedd bi te pourtant ñu ngi ci néeg bi mais ñu ngi ci mbedd mi de à partir du téléphone ñu ngi ci mbedd bi non sama doom du génn moom kay du farontu du def lii du def laa du def lii mais mu ngi ci néeg bi ak téléphone bi mu ngi toj àdduna bi mu ngi farantu donc il faut faire très attention maintenant loolu moom ku nekk yaa xam nooy tojee sa bopp janax quoi yaa xam nooy gérer téléphone yi nekk sa kër ak sa njaboot il faut nga mën ko réguler waxtaan moo koy réguler danger yi ci nekk foog nga xam ko mën koo expliquer ñun africain xamuñu baax téléphone man sama téléphone man personnellement dama ko ragal man. man dama ragal sama téléphone sama téléphone man damay voyager fu ne mës naa toog mu ne ma mois bi yëpp ñun ñëpp suñ téléphone man jour bi ma ko njëkk defee dama ko sànni dama ko pousse lépp mu retracé ko ma ne waaw waaw ma ne kon lii instrument bu ñu créé pour espionner ñu la noonu laa ko jàppee ah pour espionner la parce que tey mënu ma leen réer ñoom quoi koo xam ne yow da ngay toog téléphone bi jékki-jékki ne takk nga sonné wala def benn bruit. nga xool mu retracer la fi nga dem yëpp da da doon daw sax dal naan bi ngay jógee géejowaay fii di dem Pikine jour bi danga doon daw bee da nga doon jël oto nga jël car bus tant de kilomètres heure la doon def bee da nga doon dox donc dafa nekk loo xam ne boo xam ne ñun ñëpp dañ ci war a def très attention très attention des fois dañuy taal suñu caméra euh, ki moom Facebook Mark Zuckerberg seetaan naa interview ñu koy interview mu simi bi mu soloon dugal ci téléphone bi nëbb bëtu caméra bi bi tàqul de mu nëbb bëtu caméra bi est-ce que dégg téléphone bi tàqul mais dafa simi bulu yëre bi mu sol nëbb bëtu caméra bi parce que c'est-à-dire quoi même téléphone bi bu fayee micro bi mu ngi fonctionner caméra bi mu ngi fonctionner ñoom ñoo defar seen téléphone yow boo ko fayee nii bés arrêté nga bës mu ne taj fay écran bi fay jàppal ni micro bi fayul caméra bi fayul oui oui oui fayul mu ngi fonctionné boo filmer sa bopp envoyé nit WhatsApp yow nga effacé ko si yow effacé wul effacé wul xale jigéen ñi ñu bëri noonu lañu ñuy gisee seen vidéo yoo xam ne dañu simeeku def yaram nen def leen neex xëy suba fekk ko ci net bi dañ naan pourtant bi mu ko yónnee après dama ko effacé non effacé wul mu ngi ci mémoire téléphone bu kële même kooku bu ko effacé mu ngi ci serveur téléphone bi effacé wul Facebook loo fa bind du effacé boo ko effacé ñoom effacé wuñu ko téye nañ ko tey suba dafa am dama bind benn texte wolof bu ndaw dugal ko ci après dama ko effacé am sama benn xarit bu dëkk Congo ne ma jàngal ma wolof. ma ne ko Facebook day jàngalaate wolof oui day jàngalaate wolof Facebook di euh, trois ans ci ginnaaw boo bindoon texte wolof bu koy traduire dangay ngay rey ba xam mais tey boo bindee texte wolof bu la ko traduire mais bu nekkul à cent pour cent day nekk quatre vingt pour cent traduction bu baax parce que moo boo bind da koy mémoriser boo ko traduire mu def algorithme jël traduction bu baax bi conserver ko dugal ko ci mémoire am suba boo ko bindee mu jox la traduction bu baax bi donc des parfaire traduction petit à di dem donc ñun téléphones yi yooyu détails yooyu dañ ko ci war a xam ñu def très attention ni ñu koy utiliser police bu la jàppee ñun tàmm grève activistes yi ndaw yi di dof doflu xam nañ ci dara sa puce lay njëkk nangu bu nangoo sa bu la bàyyee da lay delloo sa lépp li nekk ci mémoire puce bi enregistré nañ ko souvent bu ñu lay delloo sa puce dañ lay delloo beneen puce waaw dañ koy changé moo tax li ñuy jàngal pour ñu nekk activiste di dem ak grève yooyu bu lay jàpp di dem ay manifestation bu la jàppee police bu la dellu nangoo sa téléphone delloo ko dammal puce bi sànni dem uti beneen puce parce que puce boobu ñu ciy dugal day espionner sa téléphone. traceur lay am merci day espionner sa téléphone. donc dafa nekk outil bu graaw xale yi di ko utiliser mais xamuñu danger yi ci nekk yëpp ñu ni ci xam as tuut ñooy toog ak ñoom waxtaan. téléphone bi lii nga ci mën a def ak lii ak lii ak lii nii lañ koy utiliser ak nii ak nii ak nii mu leer oui parce que yi ñuy wax nii dafa am yoo xam ne ñamewuñu ko wax ci mbooloo mi mais xale yu gën a garaaw yooyu la ñuy yi wala loolu la ñuy def si xale yoo xam ne juddooguñu juddooguñu juddoo guñu da nga leen ci bet yow da ngay tiit bay lox parce que da ngay imaginer yow ba nga tolleeg ba nga tollee seen at lii ñamewu ko sax wax ba kay xool mais ñoom ñu ngi ci. parce que téléphones yi seen jamono foofu la toll donc foog ñu gën ci def très attention ku nekk nag yaa xam sa kër par rapport a uti yi fa nekk appareil yi fa nekk noo koy gere mais yaakaar naa ni comme kii nu mu ko waxee en daaw da ko waxee kër yi war nañ ci gën a delloo siwaat par guddi bu ñu reeree ba pare wala ci boolu reer bi wala xaw ma nu ñuy reeree waxtaan yooyu moo amatul léegi ku nekk ak sa néeg la néeg bu nekk ak écran la néeg bu nekk ak écran la ku nekk ak sa wax na ko télé écran yi sax xoolatuñ ko gars yi seen téléphone la ñuy takk seen casque ku nekk toog di seetaan sa téléphone film bu la neex communication perdue tey force Afrique mooy communication bi daan am foofu la ñu daan yaree foofu la ñu daan wane nan la ñu war a dundee suñu biir nan la ñu war a mel lan la ñu yaakaar ñun lan la ñuy xaar ñun yooyu la ñu war a delloo si yu am solo la quoi. merci beaucoup. merci jërëjëf kontaan nañu bu baax a baax a baax a baax merci encore une fois ci causerie bi ñu bi ñu ñu offrir donc euh, ñëpp ñoo bon bon après-midi et bonne dégustation à tout le monde.